الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تب- ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تحاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون doomu ndey mbokk jullit yi ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu doolu ñu xéewal di ñaan yàlla mu doolu ñu sutura doomu ndey mbokk jullit ñi comme ci xutba yi passé yëpp ni ñu ko doon xutbawee di wax lenn si suñuy comportement ak yenn si suñuy doxalin ba tax tey moo ñu yóbbee jafe-jafe yi ñuy dund ñu tàmbali woon aaya bi nga xamante ne yàlla mu ngi ciy naan yàqute géej gi ak jéeri ji dara waralu ko lu dul li nga xamante ne moom mooy loxo doomu aadama waaye ñu tegal ñu benn confiance boo xamante ne mooy bu ñu taxawoon ci mbir yooyu rek yàlla dina indi barke ci asamaan ak suuf yàlla ne bu fekkonte ne taxaw nañu ci li nga xam ne mooy ngëm yàlla ak ragal yàlla yàlla nee na mu def barke ci asamaan ak suuf loolu moom mooy lan mooy taw bi buy ñëw taw barke lay doon waaye suuf si génnee gàncax gi lépp meññ ñu jëfandikoo ko waaye du lor kenn tey jii ñaar yooyu mu waxoon noonu di amanu wa taqaw dañ ciy jël benn rek def ko li nga xam ne moom mooy xutba bi di li nga xam ne mooy at taqwa di ragal yàlla bu ma fàttalikoo suñu premier xutba fii ci loolu lañ doon wax ay yi nga xamante ne nii moom la ñuy ubbee xutba bi tout le temps ci ragal yàlla lay wax doomu ndey mbokk julli yonent yi yàlla yónni ñoom ñëpp bi ñu ñëwee seeni xeet li ñuy njëkk a wax ak ñoom mooy dañ leen ne xanaa du ngeen ragal yàlla an ittaqullah ñoom ñëpp goo ci jël rek muy nuux muy huud muy saalix muy muy muy muy ñoom ñëpp koo ci wax rek bu waxee xeetam bii lay njëkkee ubudullaha maalakum bi xayr jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale ak kenn waaye lu mu ciy teg an ittaqullah xanaa du ngeen ragal borom bi subhanahu wa taala yàlla wax ñu si alquran wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni doomu ndey mbokk junni ndox yàlla bind doomu aadama ndox yàlla bind jinne dara warul la ko lu dul nañ ko jaamu te jaamu bi dëggantaan mooy nañ ko wéetal bañ ko bokkaale ci jaamu bi waaye jaamu bi dëggantaan mooy nañ ko ragal jaamu bi dëggantaan mooy nañ ko ragal tey boo xoolee ci mbirum taw suratul baqara yàlla aaye bu mu wax lu mu ko ubbee jaamu yàlla lu mu ko tëjee ragal yàlla mooy lan yaa ayuha nnaas ubudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum tattaquun mu doo ko ñëw indi mbiru taw mu ne ee yéen nit ñi ubudu rabbakum na ngeen jaamu seen borom ndax yàlla moom la ñu sañ a jaamu ndax mooy borom moo bind ku bindul kenn du ko jaamu ki bind moom la ñuy jaamu kon ki nga xam ne bindul moom dafa war a jaamu li ko bind te ñun ñëpp muy weñ bi gën a tuuti muy yoo bi gën a tuuti yàlla moom moo ko bind kon ñun ñëpp yàlla la ñu war a dellu jaamu ko kon bu ñu taxawee ci loolu dëggantaan rek jaamu yàlla ragal ko lu mu wax allazi jaala lakum arda firashan wa samaa binaan wa anzala min asamaai maan fa axraja bihi min asamarat risqan lakum kon noonu lay demee tout le temps du yàqu bu fekkente ne gëm nañ ko ragal nañ ko mu xamal ne suuf si moo ñu ko tàllal ba mu tàlli ñaret moo ñu defal asamaan si mu nekk mbaar ci ñun mooy wàccee ci asamaan si saw taw taw bi moom mooy meññ li nga xamante ne moom mooy meññ fi te ñun ñoo koy jëfandikoo kon war nañu taxaw ci loolu bu baax a baax a baax yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla nañu yàlla def dëggantaan ay jaam yi nga xamante ne dañ koy ragal ndax ci loolu la ñu mën am teraanga àdduna ak àllaaxira pour ñu am àdduna bu dal faw ñu ragal borom bi subhaanahu wa taala faw ñu ragal ko pour ñu am ëllëg ak jàmm àjjana dond ko faw ñu ragal yàlla yàlla moo ko si alxuraan mu ne ñii doon àjjana ëllëg ak jàmm mooy ñi ko ragal kon ku ñeme yàlla du dugg àjjana parce que ñaar yooyu rek moo am da ngay ragal wala nga ñeme te kenn dong moo méritoo ñu ragal ko mooy suñu borom subhaanahu wa taala ku dul moom méritoowul ñu ragal ko incha allah bu ñu toogee jugaat dañuy yaatal ci ragal yàlla moom mooy lan ñu fàttaliwaat ko nammaat ko téye ko te xam ne loolu moom mooy suñu bénéfice te loolu moom mooy suñu teranga ñu bañ koo sàggane yàlla na yàlla may dégg ak topp aquli qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum sa'a muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala doomu ndey mbokk jullit ñi suñu diine bàyyiwul dara suñu diine mooy diine bi gën ci diine yi ndax bu ñu nee diine yi sax ndax diine diine amul beneen bu dul bii doomu aadama moom moo dëgër fit ñeme di fent ay diine boppam moo tax yàlla bi muy wax ci alquran lu mu wax mu ne inna lazina farraqu diinahum hum laa wax da cee génnee boppam moom yàlla ndax reconnaître wul lu dul diine islam inna diina inda allaahil islam yàlla diine bu mu reconnaître mooy islam bii ñu xam yàlla nañ ci yàlla saxal te pour tegu ci yoon bi moom mooy nga tegu ci assiraat al mustaqim benn yoon kese la du ay yoon assiraat singulier la mustaqim bu jub dem fa fan ba àjjana waaye nag bo ngal la waaye bul topp am na ay déviation ay yoon yu ñu créé seytaane ko def ndax bëggul ku yegg ci com combartal ba moo tax boo xoolee mbooloo gi lu muy bëri bëri bëri bëri lu néew mooy yegg ci cat ba yéen saa salaam nee na yowmal xiyaam boo tegee mille personnes mille personnes ñu tàmbali ci aadama ba ci ku mujjee juddu nga jël di def par pourcent par pourcentage mille mille mille nee na mille boo teg kenn mooy dugg àjjana neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yëpp fi naar kon seytaane am na ndam te moom bi muy wax bi muy dàggasanteeg yàlla dafa doon njortu rek moo tax yàlla wax ci alxuraan iblis dëggal na li mu njortoon doomu ndey mbokk jullit ñi iblis nax nañu dem na ba fàttaloo ñu suñu borom fàttaloo ñu boppam sax si boppam ndax néew na ci ñun tey kuy xëy suba ba ngoon fàttaliku iblis ndax xam na ne buñ ko fàttee rek dinañu mën a jaar fu nekk duñ def loolu ko neex waaye bu ñuy fàttaliku iblis moo ñuy tax ñu di ko moytu mais boppam sax daf ñu koo fàtteloo moom iblis doomu ndey mbokk jullit ñi nañu bàyyi xel suñu noon boobu amuñu noonu ñun doomu aadama duñu ay noon benn noonu la ñu am mooy iblis yàlla na ko yàlla rëbb te da koy rëbb sax doomu ndey mbokk jullit ñi nañu jàppante nañu bëggante nañu wóolante nañu soppante ci loolu la ñuy amee ragal yàlla comme ni ko alin ibn abi taalib firee biñ ko laajee lan mooy ragal yàlla ginnaaw yonent bi moom daf ñu koo tënkal ci tënk bu simple ragal yàlla moom mooy intisaanin awaamiri wa ijtinaabi nawaahi mooy jëfe santaane yi sa kémta lay kàttan ndax am na loo xam ne mënoo ko si jaamu yàlla yi am na loo mën ci li nga tolloo loolu ngay def tey am na koo xam ne wér-gu-yaramam may ko mu taxaw julli day toog ki mën taxaw mu taxaw kon jaamu yi da ngay def sa kémta lay kàttan fi mu yem waaye tere yi nag moom da ngay bàyyi lépp naa bi nawaahi da ngay bàyyi lépp amul mun naa amul munuma munuma bàyyi njaaloo déedéet munuma bàyyi wax lu dul dëgg déedéet munuma bàyyi sàcc déedéet moom da ngay bàyyi lépp tere yi lii nag lii la ñu yonent wax ne lii mooy ragal yàlla nit ki su nekkee santaane yi kémtalaay kàttanam bàyyi tere yi am na ragal yàlla ñu laaj Ali ibn Abi Talib mu ne ragal yàlla ci ñent yi lay tegu tey moo tax mu tum ranke dañu xool ñent yi ñu xool ñun ban position la ñu am ci ñent yi est-ce que yóbbeewuñu jafe-jafe yi ñu nekk est-ce que yóbbeewuñu dund bu seer bi ñu nekk est-ce que yóbbeewuñu taw bii nga xam ne ku am xel di xool xam ne barkewul est-ce que est-ce que ragal yàlla ñenti point yi ñun yii nii tum rankewul ba yóbbee ñu da ngay ji ba yaakaar na yaa ci nekk léegi léegi ki indi ki ñu indeek oto bi ñu ngi tiim tool bi mu ñuy wan di xool garab papaay yi nga xam ne ñoo gën a bëgg ndox sax ñu ngi dee ndax ndox bu bëri loolu du lu barke mbugal la doomu ndey mbokk jullit ñi te dara yóbbeewuñu ko loolu suñu compor suñu comportement ñun ñii ñu ne Alioune lan mooy ragal yàlla mu ne ragal yàlla de bu njëkk de moom mooy alxawfu minal jalili nga nga bàyyi xel sa borom ragal ko est-ce que ñu ngi bàyyi xel suñu borom est-ce que kiy bàyyi xel boromam dina dem seeti njabarkat bi di njabaraate est-ce que kiy bàyyi xel moroomam dina toog di jëw mbokk julitam est-ce que kiy bàyyi xel boromam dina dina dina dina dina dina dina mu ne point bu njëkk bi mooy alxawfu minal jalil bàyyi sa xel sa borom tànk bi nga yëkkati sax nga bàyyi sa xel sa borom yëkkati bi nga ko yëkkati ak fi nga ko war a teg fan la fi ma war a teg sama bët bi lii may jël est-ce que maa ko moom wala moomu ma ko est-ce que est-ce que kooku mooy ki bàyyi xel yàlla ñaareel bi ñu ne ko mooy ban mu ne wala amalu bi tanzili mooy jëfe alquran moo nekkoon suñu xutba yi yëpp wa man agrada an zikri fa inna lahu maishatan danka du mooy alquran tey moo ñu indi jafe-jafe yu metti yi te du ci yem yowmal xiyaam dañuy dekkee gumba tey ndax jëfe nañu alquran mu ne deuxième point ki ragal yàlla mandargaam foo ko fekk léppam alquran la te waxoon nañu ci xutba gi koo xam ne waxtaanam lépp alquran la ci dëgg rek lay dox du jàdd yoon bi mooy wal amalu bi tanzil ñu ne ko ñetteel bi mooy lan mu ne wal qanaatu min al qalili nit ki doylu doylu ci li ko yàlla wërsëgal tey ñàkk doylu moo ñu yóbbee li yépp sa morom bu tabaxee étage nga ne lu tax mu ko fi tabax waru koo tabax ñu iñaanante di soxorante di alagante di lorante lan moo ko waral mooy ñàkk doylu tey bu ñu doylu woon dañuy yéwénante ñu xam ne yàlla moom moo bind te yemalewul moo jox ñii xañ ñii tey bu ñëpp tolloo woon rek ku nekk xeeb sa xeeb sa xeeb sa cër nii moo neex yàlla moo tax yàlla bindee nii mbiri doomu ndey mbokk jullit ñi bii mooy ñetteelu point bi ñeenteelu point bi mooy wal istihdaadu li yawmil raxiil mooy nit ki di fàttaliku dee fu mu toll nit ki bi fàttaliku dee xam ne fi mu toog léegi léegi mun na fa dee am na koo xam ne taxaw na fii ma taxaw dee taxaw di xutba jeexalagul xutba bi dee kon nit ki buy bàyyi xel dee te xam ne dee mun na ko fekk ci circonstance bu nekk kon ci lu neex yàlla rek lay nekk am na koo xam ne pleine scène la nekk seen concert fa la faatu ndax mën nga comparer kooku ak ki nga xam ne dafa sujjóot faatu ku gumba ak kuy gis mënuñ kenn du ko comprendre kenn du ko comparer doomu ndey fii lañ toll tey xool leen ñeenti point yi ndax tumurankewul ndax ñu ngi bàyyi xel yàlla ndax ñu ngi jëfe alxuraan ndax doylu nañu ndax ñu ngi bàyyi xel dee mi nga xam ne chaque jour mu fëgg suñu bunt yi ñeent yi Ali ibn Abi Talib nee na lii mooy ragal yàlla ci ki mu nekk ci moom benn su nekkul ci yow sa ragal yàlla xoolaat ko yàlla nañ yàlla may dégg ak topp yàlla nañ yàlla def ñu nekk dëggantaan ñu ko ragal ndax ci loolu mooy suñu teraanga àdduna ak alaaxira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله